yéen ñi di suivre suñu kër gi di Faaida TV bu ngeen bëggee di jot ci suñuy programme ak di seetaan suñuy vidéo da ngeen di abonné ci seen bii di Faaida TV ngir abonné da ngeen di bës ci bind bu xonk bi ñu bind abonné waaye bu leen fàttee bës ci kolos bi ngir man di jot suñuy notification te bu leen fàttee zem tey partagé suñuy vidéo ak Faaida TV njariñ kase la leen di jural asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi seetaan Faaida TV ñu ngi leen di ziyaar di leen ñaanal jàmm di leen wax seen xarit seen mbokk seen rak seen jarbaat seen doom moo leen doon présenté tey émission bu bees bii di nit nite muy soxna Nogaye njaay ñu ngi leen di wax euh, nit nite nag liñ ci mën a jàngatee dafa yaatu dafa yaatu tey dañuy jël ci li nga xamante ne ni moo amoon ci semaine bi li nga xam ne moo xew ca armeri yi ci pikin muy cimetière ya ñu sulli fa ay gàllaaj lu doy waar ñu sul xale yi dem fa di set setal sulli fa ay gàllaaj yu lu lu ñaaw ci gis-gis lu ñaaw ci déggin lu ñaaw ci defin loo xamante ne nii war nañ cee bàyyi xel suñu mbokk yi ndax euh, nit buñ nee nit nite da ngay duggaale ba foofu ndax looy def rek ak sa conscience tranquille rek war nga cee jiital nite ak gëm yàlla ak gëm sa bopp ak xam ni lu xew rek yàlla la. xam ne lu mën a am rek suñu borom bi moo ko dogal subhaanahu wa taala lu sa mbokk am nga yéene ko ko lu sa xarit am nga yéene ko ko ndax kiy jug dem ba ci sëriñ fay xaalisam ñu defaral ko liggéey mu ñëw soit dafa fay kii garde ci armeer yi soit dafa fay ay xale yu góor lu mu ko mën a dugalee ba sulli néew ba ak fit boobu nga am njàmbaar googu nga am soo ko amoon ci gëm sa bopp liggéey fayit am loo ñafeel sa bopp kon di nga ko am ci amin bu sell te soo ko amee dina dina dina dina dina doon loo xamante ne nii luy sell lay doon loo ci def rek day barkeel waaye nga jóg taxaw si sëriñ nit kii tey du fi amee lii. sama mbokk bii du fi amee lii sama xarit bi du fi amee lii ndax ndax mbokk yi nañ waxtaanaat koo xamul doo ko def lu bon koo xamul doo ko liggéey koo xamul du la jaral ngay jóg di jéggi ay jéego di dem ci sëriñ di fay sa xaalis di ñëw di ko def lu ñaaw wala nga koy def lu ñi nga xam rek ngay yàq sa xarit rek ngay yàq sa mbokk rek ngay yàq koo xamante ni tey jii maara day taali bu ñu woon këpp daana na ñu yuuxoo kenn du la fa jiitu kenn du la dàq jooy kenn du la dàq dugal estati mbokk yi li xew léegi ñaaw na dañ lay rey jaale la jooyle la dëjle la lan moo ko fi jar lan moo ko fi jar ana alalu àdduna bu jar loolu loo xamante ni yow tey jii mën nga koo def bu subaa nga gaañu tey jii mën nga koo def bu ginnaaw subaa nga gaañu ana lan ngay wax suñu borom soo tasee kooku nga yàq lan nga koy wax lan ngay layoon nañu leen delloo waat xel yi nañu leen delloo siwaat xel yi jàngaat bu baax a baax a baax a baax suñu doxalin ak fi ñuy teg suñu tànk nga xamante ne ni àdduna loo fi def rek àdduna école la loo fi def rek bu yow mal xiyaamee di nga ko tari di nga nettaliwaat suñu borom fi nga jaaroon yëpp sa duniyaa yëpp dara gënul yées nag nga taxaw naa sama nawle bi maa ko defoon lii sama doom bii maa ko defoon lii sama rakk bi maa ko defoon lii sama mbokk mi maa ko defoon lii sama doom baay ah ñu yeewu waat ci bu baax a baax a baax a baax mbokk alalu yàlla sama gaay dañ leen ci góorlu bu baax a baax a baax a baax ndax soo xoolee euh, nit nite loolu nga xamante ne nii tey jii développé nañ ko ci thème bi muy muy galaaj yooyu ñuy suul suñu Papa Thione Seck daf cee wax lu am solo lu am a am solo gaay yi ñu dégluwaat ko te ñëwaat Baba. mbokk kon ñoo ko déggandoo muy lu am solo loo xamante ni suñu papa Thione ñëw na ko wax na ko joxe ci message ñu ngi koy ñaanal yàlla na yàlla yeesal njéggalam yooyu xaare ko àjjana yu gën a kawe mu wax ci lu am solo lu am ama am solo loo xamante ne nii tey jii ba tey tey ñu ngi koy dund muy lu am lu nekk nga jóg jël sa xaalis dugg oto jaagir jaagir dem waroon koo ñàkk sa temps si jaamu yàlla waroon a ñàkk sa temps si loo xamante ni da nga ciy dimbali nit mu yokkoo ci nga waroon a yàq sa temps si loo xamante ni yaa ngi ciy faj doomi aadama nga jël sa oto yàq sa temps dem ba ci sëriñ di fay pour mu yàqal la sa moroomu doomu aadama sa mbokk nga koy def wala sa xarit comme ni ma ko waxee woon ndax kenn du yàq koo xamul sama gaay yi ñoo ngi noonu nag àdduna yàqu na tasaaroo nag kenn xamul foo jëm ñu war a defaraat jikko yi defaraat taxawaay nga xamante ne ni boo xamee ni yow yaa ngi yàq doomu aadama da ngay xool nga xam bu ñëwoon ci sa kaw ni muy méttee ci yow bu daloon ci sa doom bu daloon ci sa rakk ni muy méttee nga war koo jël teg ko doomu aadama loo natt ci sa bopp jotu bu ko solo sam nawle nga xamante ni yàq doomu jàmbur ah ay waajuram jaaxle lool te moo doonoon seeni yaakaar mu doon message boo xamante ni am ama am solo doo xam sax yow li ngay yàq millions de personnes yi ngay yàq seen àdduna nga xam ne mu ngi wékku woon ci seen taawuyaay yaay boobu wékku woon ci seen rakk jooju wékku woon ci seen mag jooju ndax yàlla dina fekk kër mu jël benn nit ko ci gën a tuuti mu yékkati ko jox ko alal mu war leen a suqali war leen a dimbali ñoom ñëpp nga jóg ni lii du fi ame yàqal kooku yàqaloo kooku kese yàqal nga famille bi yëpp yàqal nga mbokk yëpp ku ci wërsëgam nekkoon rek yàqal nga ko te àq boobu nag dalay topp àq boobu dalay topp suñu borom du la ko baal nañ leen defaraat jikko yi nit ñi nañ leen defaraat jikko yi xam suñu bopp nit dafa bari valeur nit warul yàq àddunaam ci soxor ak iñaan ak kii am na lii lu tax mu am ko yàllaa ko ko may lan moo tax mu am ko moom ngay laaj yàlla suñu borom bi nga xamante ni mooy borom bët bu réy bi moom moo ko ko may léegi yow li nga war a def mooy delloo question bi sa bopp nga góor lu takk sa ndigg ñafe liggéey ku liggéey yàlla may la gis nga looy xëccu yàlla na gën ci yow booy xëccu milliard ni tey tey tey tey tey milliard laay fanaanoo milliard boobu est-ce que yàlla waxu la woon yow di nga am milliard waaye milliard boobu dafa war di ñëw weer wu jot 100000 weer bu jot 50000 chaque jour 10000 yow nga ni déedéet du ma ko amee noonu chaque jour 100 francs 100000 francs laa koy amee bu 100000 ya ñëwee milliards ya ñëwandoo ci ñaari weer ñetti weer nga gaañu ndax lekk nga sa wërsëg yow. ci benn quelque temps bu gàtt gàtt gàtt boo xamante ne nii lii nga xëccu dem ngër-ngëri ba am ko ñëw indi ko te mu nekk wërsëg boo xam ne dafa naroon duré chaque mois nga am 200000 chaque mois nga am 500000 chaque mois nga am million. muy dem di dem di noonu fur et à sa dund ngay tedd di nekk lekk lu sell di dox si lu yiw loo xamante ne nii ku la ci fekk dina la naw du la jéppi du la mere ndax teg nga ci yoonu siraatal mustaqim mbokk yi nga jël loolu même sàcc bi nga xamante ne nii day jug di dem di sàcc wërsëgam la dem jëli boo cambrioler toj banque jàmbur jël la fa nekk indi ko sa wërsëg la yaa ko moom su fekkee nag dañ laa jàpp ne la ràcc si kaso bi nga gaañu jommi su fekkee ne dañ laa ne dóor bal teel nga gaañu parce que yàlla bindoon na ne di nga am milliard waaye milliard boobu da nga kaa yàkkamti na nga ko jëlee moo rafetul looloo tax ñu dóor la bal nga yem fa soo defoon ndànk tempo tempo def ndànk faj sa àdduna liggéey gëm sa bopp dinga am milliard boobu day egsi nga savouré ko normal dund ci la neex dund ci sa àjjana te doo am benn problème waaye boo ko yàkkamtee yàkkamti yàqule sama gaay kon boog nañ leen delloo si waat xel yi te xamaat ñun ñooy kan doomu aadama dafa bari valeur valeur am ak temps waru koo yàq ci lu dul jàmm waru koo yàq ci lu dul lu am solo waru koo yàq ci lu dul luy jariñ doomu aadama waaye waroo koo yàq benn yoon ci luy jaxase dundu doomu aadama luy perturber dundu doomu aadama luy yàq dundu doomu aadama nañ leen bàyyi bàyyiwaat jëf yu ñaaw yi te delloo siwaat xel yi bu baax te xam ne lu xew yàlla la lu mën a am suñu boroom la kon gars yi ñu ngi tàggatoo waat foofu rek di wàcce waat kàddu yi xam naa ni ba beneen émission nit nite incha allah ñu ñëw ci gën cee yaatal ci yeneen i pàcc ñu ngi leen di wax ni ñu ngi woon fii tey ci Faaida TV suñu site internet boobu di ñaan ngeen teewlu ko bu baax ndax am na yu am solo yoo xamante ni ñu ngi koy jàllale te yeneen a ngi ñëw ay motivation yu am solo ndax bëgg nañ cee boole ñi nga xamante ni ñoo nekk ci commercial bi di yëngu ci njaay ak jënd nga xam ne yaa ngi am sa magasin bëgg ku la yaatalal bëgg ku la woneel sa marchandise boo ñu woowee. dangay ngay da ngay woote après nañ affiché sa numéro bi comme ça boo ci wootee rek dañ lay woon fi ngay jaar ñu ñëw defal la publicité waneel la lépp looy jaay ñu waneel la ko ci site internet bi partagé la ko fépp foo xamante ne nit dina fa dégloo wala dina fa xoole nga mën a jaay sa jaay tranquillement am sa wërsëg doo yàqal kenn kenn du la yàqal sama gars yi kon jaa ngeen jëf ko beneen yoon.